mawliduhu muasamu jullit yi mbokk taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullah digal bawoon na ca sang bu tedd ba cheikh mouhamadou muntaxa mbàkke yàlla na fi yàgg lool te wér fédération daayira murid bu Argentine ci taxawaayu daayira sëriñ saalihu mbàkke ñooy am bégte di leen woo ci gàmmu 2019 gii daañu ko defee fi ñu defe woon màggalu Tuubaa ñuy ñaan bépp jullit bu nekk ci réew mi nga teew ci programme bi ni ñu ko miinee ak ñetti kuréelu xasaa it yi nu miin jës bu muwahibu muhadimat ak barsan beek sëriñ saalihu bu seex am sa daañu amal ay bernde li mu julli ci yonente bi lu takk lool ak jàng alxuraan jàng xasaayit nu ci woo bépp jullit bu nekk ci biir réew mi rek nu ñëw dundal gàmmu gi ni la ko ku tedd ki digle woon direction bi nag fi ñu defee woon màggalu Touba gi 2019 ñuy ñaan képp koo xam ne rek teew nga fa buur bi laahu bi am fay yàlla na la fay ci barkeb Seydina Muhammad ci barkeb si axul xadim Cheikh Ahmadou Bamba yàlla na nga dajeek yoolub ko dundal gàmm ma wax mooy jox digal nag mooy di kër yi nga xam ne dañ koo sanc def ko kër yi sëñ Tuubaa ci dëkk bu mën doon ci réew bu mën doon nag kër ñu ba def ba def fa kër ya ñu jiw na ko mooy def suñu kër ñooy maa ngi di ba def fa kër ñu saxal fa gàmm ci liggéey sëñ Tuubaa